sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di nag bu baax a baax di leen jox ngeen joxal nu sunu nuyoo le xalif général des Khadria Cheikh Bekkaay Cheikh Al Bekkaay di leen santit ci teeru bu rafet bi nga xam ne tey moom ngeen nu teeru ni ngeen daan ni ngeen daan teeroo Ousmane Tanor Dieng muy sama kilif te ba mu fi jëkkee ñëw ba ni mu fi mujjee ñëw mu si leen soppi mukk seen xari kanam ci moom. léegi nag dama bëggoon a bàyyi euh, Abdoulaye Wilane mu présenté délégation bi ma àndal bu ñu paree bu ñu paree ñu jox kàddu gi Moustapha Diaw ndax dafa am yoon woo xam ne parti bi noonu la tëdd te mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy les anciens ñooy vétéran wu parti bi il faut ñu jox leen ay kaddu loolu rekk day laa amoon ci li ma doon wax sëriñ bi sukkandiku ajaratu Aminata Mbengue Ndiaye secrétaire bu parti. parti président Léopold Sédar Senghor nekk parti président Abdou Diouf nekkoon parti sunu kilifa gi ñu jooy te noppeeguñu te di leen gërëm ci ñaan yeeg taxaw yi di ko dollee dénk ak Hadji Ousmane Tanor Dieng yàlla dogal kilifteef bi baat bi. lépp daje ci ajartu Aminata Mbengue Ndiaye ci lu àndul ak lu mu sàkku lu mu xëccoo walla sax lu mu yéene woon te fësal ñépp ñu nekk ci parti bi nangul ko ko yéene ko ko ànd ci ak moom te rek tax ak Sénégal Aminata Mbengue Ndiaye moomu la buur yàlla dogalit ci xalaat ak doxalin bu rafet bu président Macky mu jiite au conseil de collectivités territoriales wuutu ca maqama ba ak daraja ba président Ousmane Tanor Dieng mi ko Macky Sall joxoon bi mu ko dakk sos moom moo ñëw ànd ak ñun di wéele tànk yi nga xam ne ni moom la ñi ñu ilifoon daan jëflante kër ji yi ñëw fii ànd ak lenn ci kilifa yi nga xam ne ni moom la seqal parti bi ma ràññee ci président Mar Diouf mi ngeen xam te léegi-léegi ngeen ràññee ko ne ci kër bokk moo jiite région cap li ñuy wax Ndakaaru mu ngi feggoo ak jàmbaar ku nangu kilifteef ku doy muy président Makhoudia Ndour moo toog nii bokk ci délégation bi dëkk Rufisque soxna su tedd si nga xam ne nii léegi ñemetuma wax turam ndax nag sama yaay la waaye sama mpaañ la itam waaye gannaaw mooy wéyuru xalifa bi nañu ko teg fi ko yàlla teg rek Sall Ngaari moo toog nii kenn ci kër gi waaye itam bokk ci ñi ñu jiite ci région Saint-Louis euh, région Thiès xam naa teewaayam ak sunu teewaayu ñun ñëpp yóbbuwaale na teewaayu maam bu naa ma sàll mi ngi tudd léegi dangeen xam ne dogalu suñu borom daa wàcc ca këram way juróom wu jigéen te way jur nag moom lu mu fi yàgg yàgg yàgg yàgg bu fi jëf ko rek nga am loo yëg sa xol moo gën àdduna jamono yi mu nekk nag ca tuubaa di dalal ay gan boo mën a waaye moo mooy suñu kilifa muy sunu bunt ci région Thiès rawatina département Tivaouane bu ñu ñëw fii moom moo waroon a ubbi yoon wi waaye moom moo fexe ci rende yu ba noppi eh, sàkku ñu wuutu ko fii moom mu wuutuñu foofa bopp yoon wi nag balaa ma ñëw ci ñu toggee na le waaye dinaa si dellu si léegi ndax noonu la ko amin të tëralee ñu ngi fii également ak euh, honorable député Adji Fat Sène ngeen xam ko mu bokk ak yéen li mu bokk ak yéen ak Tiwaawoon bien sûr bopp yoon wi bunt bi ci Tiwaawoon mooy El Hadji Djibi Kandji mu itam ci mbaax gi ci njàmbaar gi ak ci dëggu gi ñu ngi dend ak Ajaratu Roxee Jaw di député à l'Assemblée nationale dëkk Louga bokk ci ndaw ñi gën a rafet melokaan ci ñi part bi tàggat ci jamonoy Senghor ak Abdou juuf bokk ci jeunesse solis yi toog di xaar di xaar di muñ liggéey ba xëy yàlla def ko mu nekk député à l'Assemblée nationale dend ak jigéen joo xam ne nii moom itam yàlla ko ràññee benn jigéen laa xamagum muy chef de village ci Sénégal yépp muy Adjaratou Bousso Ngom mais léegi it mu nekk député à l'Assemblée nationale te assemblée ga mu nekk mu nekk fa mbooleem askan wi waaye nag di fa taxaw ñi ñuy wax borom dëkk seen soxla yépp ci lu nëbboog li feeñ liñ mën a wax ak liñ mën ta wax man cay taxaw di ci wax sa àqam ñu ngi ànd délégation bi ak ki nga xam ne nii mooy secrétaire permanent moom mooy yore kàggu kër gi moom mooy célébé yoon ci kër gi pas-pas bi nëb bi fi mu nekk moom mooy Cheikh Sadibou sëy mënoon naa ci lim ñu bëree bëri waaye bu ma bëgg a tudd ñëpp danaa leen fi gën a yàggal te ku ñëpp bokk loo ci am dafa war a doy may yemale foofu lim bi rek ñi ma tudd ñu yóbbaale ñeneen ñëpp bopp yoon wi nag ni ko ajaratu amante mee ngi jaay tëralee te mu dëppoog aadaay réew mi te mu dëppoog li xew ci kër yi dëppoog itam li yàlla dogal parce que bu lëkk lekki aloom na ko gërëmee coy mag ñi nga xam ne nii ñoo fi nekkoon ci jamonoy Senghor ak Abdou Diouf ba nëgën nañu continuer fi nekk yow ji koy puso di defar di ñu fàttali démb te seeni at terewul suñuy wootee heure rendez ñoo fay jekk te bu ñu ànd ak ñoom it ñuy gën a yaru ñu gën a dal te duñu dégg seen binni mooy suñu sage parti bi te keneen leen teewal fii tey bokk ci ñi ko jiite muy suñu bàyyi Moustapha Diaw yi ñuy toog moom mooy yebbi wax bi ma leeral leen rek ne dëgg la ñaari cër yi daje neen ci moom waaye bu fekkonte ne au conseil mu ñëw nan Ousmane daan def la ray kon dana fexe membre au conseil bi yëpp yëg ko ak ni au conseil bindoo ak li ci yàlla def président Macky Sall def ko ci jëmale ko ci kër yi kon buñ doon ñëw fi ni noonu lay demee waaye dafa ne comme jëlagul service maanaam installé guñ ko te danañuy wax ci diplomatie ne en toute chose forme ak fond dafa am ñoo dañoo am d'égale importance moo tax mu ñëw ci turu parti bi ñun ñi ñu ànd ak moom ñëw di ñaan yàlla yàgg li fa fekk di ñaan yàlla bés bii lépp luñ ci bëgg a def yàlla na yomb te yemb di rafetlu itam mbaax gi bu ma baaxee ci dara darajaam ak ci wërsëgam ba sàkku ma jël kàddu def présentation bi nii ndax fii nit yàlla yu baax yoon ñoo fi nekk yoo xam ne ku wax ñu dégg ñu xool la nga noyyi ngelaw li ngay ak li ñu noyyi rek am nga yaakaar war nga ko am bu baax a baax baax Afrique moo fi teew l'islam adduna bi yëpp moo fi teew ci kër gii alkontiw waaye yéen yéen a bokk ak Sénégal ah, jaxasoo deret ci tuuba jaxasoo deret ci Tivaouane jaxasoo deret ci kër yëpp ah, ëmb réew mi lare ko te booloo leen ko bajantu ànd ak dal yal na yàlla saxal teraanga fii yal na yàlla aar leen yal na yàlla sutural leen noo ngi leen di dénk nag suñu yaakaar kii wax ngeen léegi li ngeen xam ci moom mm-hmm. at yi mu am ku am cim réew tey jigéen te lii gàcc ci moom si morom indi ko te benn jogaloo fa gis dana ne maa ko moom wala maa ko war a am ku yàlla baaxal moo koy am. wala yu nag dañuy foog ne wala maqaamay nitu yàlla foog ne ci góor lay am waaye boo ca gaynde ci àll ba gis fa gaynde gu góor ak gu su bëgg mucc. loolu dafay xelal gaynde gu jigéen bi ak la mu jur ba pare. waaye boo dewul nàgg rek ñu ngi leen koy dénk ñaan yàlla li gàcc ci loo sam yàlla ci am ndam ci kenn mostaan. yàlla na jëf ba matal te jëfee sago yàlla na yàlla féq fanam wii mu gudd lool bu muy kéemaan yàlla tëbb ko kattan wërsëgal ko te yàlla tàggatal ko ñi mu àndal ñun ñëpp bañ am loyauté ànd ak moom ci dëggu ànd ak moom ci watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabr wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum ngeen may bii fii ci axlu kunti yu fii ci axlu kunti nga daanaka lislaam nga xam ne daanaka lislaam ba mu jógee ci réewu naar ya ba mu jógee ca réewu naar ya jaar ci suñu maam Cheikh Abdou Khadir Jeylaani fii fii axlu kuntiyu la axlu kuntiyu ñoo ko fi indi ñoo ko fi indi mu nekk fii ci senegal mu nekk fii ci Sénégal ne ci nekk Mauritanie Mauritanie Mali Mali ba ba ngay Bagdad ba Medina ñëw itam ci dëkk bi fii. ñëw it ci dëkk bi fii. ci réew mi ci réew mi. jaxasoo jaxasoo. ak këru diine yëpp ak këru diine yëpp. benn ci firnde. benn ci firnde. si. maam xalifa Ababacar si. amoon fi soxna. Ah, moo jëloon soxna Marème Kunta. benn ci firnde. benn ci firnde. Euh, soxna Ami Mbakke. soxna Ami Mbakke. bu Serigne Modou Moussa Mbakke. bu Serigne Modou Moustapha Mbakke. maam bu Kunta. maa alaaji maam bu mamadu Kunta. moo doon borom mooy borom këram. moo doonoon borom këram. ñu am njaboot. am ca njaboot. yoo xam ne yii. yoo xam ne. kilifa lañ ci eh, Njaasaan. kilifa lañ ci Njaasaan. di kilifa ca Touba. waaye kilifa lañ it ca Touba. ndaxte càmmiñam. ndax càmmiñam. amul Mokhtar. ama Cheikh Ahmadou Mokhtar. mooy xalifa Daaru Khuddoos. mooy xalifa Daaru Khuddoos. xalifa guy mbind. xalifa guy mbind. te topp ci sëriñ mag bi léegi. te topp léegi ci sëriñ bu mag bi. kon te mbokk. kon dey. te kenn nii fii de yi. kon ne fii de ku fi ñëw ku fi ñëw de. ñëw nga ci dëkkul islam ëttul ñëw nga ci ëttul islam. ñu ñëw nag ànd ak soxna su tedd si. ñu ñëw nag ak soxna su tedd si. ci turu parti socialiste. ci turu parti socialiste. ñu ñu yàlla baaxee. ñu ñu yàlla baaxee. ñu ko Ablaye waxee léegi. comme ni ko Ablaye waxee léegi. ñu ànd ak président Léopold Sédar Senghor. ñu àndoon ak président Léopold Sédar ñenn ci waa kër gi. àndoon ak ñenn ci waa kër gi. Ahmadou Bachir Ahmed Bachir Kounta. suñu wayjur Cheikh Ahmed Bachir yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko. mu am na ñeneen ñu ne ci ambassade itam. ñu ne ci ambassadeur yi. jamono jamonoy Abdou Diouf. jamonoy Abdou Diouf. ku Kunta ku mel ni Serigne Abdourahmane Kunta nekkoon Jedda nekkoon Jedda dafa liggéey bu baax a ma nga ne mooy Serigne Cheikh Ahmed Rafahi Kunta moo nekk ne moo nekkoon Makka ak bari na ñu nekkoon affaire étrangère tabarakallahu euh, bés bi ñu yàlla indi nag ne bés bii ñu yàlla indi muy bés bi gën ci bés yi muy bés ba nga xamante ni moo gën ci bés yi bés yomal jumaa bési yomal soxna Aminta Mbengue Ndiaye. yàlla xelal soxna Aminta Mbengue Ndiaye. mu ne nañ ci ñëw fii. mu ne nañu ñëw fii. ci jamono yi ñuy màggalee. ci jamono yi màggalee. guddi la sallallahu alayhi wa sallam. guddi sallallahu alayhi wa sallam. ñu war a ngénte suba. ñu war a ko suba. loolu day jar na yaakaar. loolu day jar na yaakaar. wane itam firnde. wane na it firnde ne. kër gii ne kër gii. lu fi aw si. lu fi. li fi nit wut si. li fi nit wut si. mën na ko fi fekk incha allah mën na ko fee fekk incha allah. te daal bi ñu dalal. te daal bi ñu dalal. dafa dal xel. daa dalum xel. képp kuy kunti dëkk bi. képp kuy axlu kunti yu ci dëkk bi. teew nga fi teew nga fii. lii day. lii day. bariwul di am. bariwul di am. kon de boog soxna si. kon day soxna si. ci turu parti socialiste bi ñu àndal ci turu parti socialiste bi ñu àndal. ak ñi ñu àndal. ak ñi ñu àndal. ñu ngi leen di yeesal. ñu ngi yeesal. seen pas-pas. seen pas-pas. ak seen yaakaar. ak seen yaakaar. ak seen wëllëre. ak seen wëllëre. bi nga bi nga xamante ni. mosul jóg mosul jóg. ci parti socialiste. ci parti socialiste. ak kër gi ak kër gi. te moo xam itam. te moo xam itam. diggante kër gi. diggante kër gi. ak Tiwaawoon ak Tiwaawoon. ak Touba ak Touba. te ku di Touba. te ku di Touba. ni Tiwaawoon ne Tiwaawoon. ni Ndiassane ne Ndiassane. ah defe naa bëgg mat. defe naa nag nag dara desatu ci. kon boog ñu soxna si nee na. kon soxna si nee na. Euh, fa ñu ñi nit ñi kilifa yi jaaroon. fa kilifa yi jaaroon. la fas yéene jaar. la fas yéene jaar. ak parti socialiste. parti socialiste. ci kër gi fii. ci kër gi fii. di dox di dox. di xalaat di xalaat. di wax di wax. di déglu seen i xalaat di déglu seen xalaat. di sakku seen ñaan di seen ñaan. parce que fii. ndax fii. am na yaakaar ni am na nañu yaakaar ni. lu fi waay ñaan yàlla. lu fi waay ñaan yàlla. yàlla mën na ci mën na ci rafet njort. yàlla mën na cee def tawféex. kon nag comme tey ajuma la nag. kon nag comme tey ajuma la. te ñuy waajal julli juma te ñuy waajal julli juma dafa xat. du ñu xabaabal. du ñu xabaabal de. xaylu kalaama. Uh-huh. ma xala wa dal la. ma goog. waaw wax jërëjëf. asalaamaaleykum porte parole. ak délégation bi mu àndal yëpp. ak délégation bi mu àndal yëpp. ndax boo demee ci dëkk. ndax boo demee ci dëkk. wala ci kër. wala ci kër. ñu génneel la njaboot gi tegal la. ñu génneel la njaboot gi tegal la. teraanga mënu koo weesu. teraanga mënta weesu loolu. rawatina bu dee. rawatina nag bu dee. tey bi nga xamante ni du ñuy màggal juddug tey yii nga xamante ni kii nag ci la ñuy màggal guddig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñoom ñuy ngénte. kon yal na ngénte li neex yal na lépp bari lu fi waay ñaan yal na ko sama borom nangu dénk nañ leen suñu bopp dénk nañ leen réew mi dénk nañ leen président de la république ndax liggéey bii nga xamante ni kii moom la ñu ànd di ko liggéey ak moom ñun ay mag lañu te bu ñu gisoon ni liggéey bi awul yoon te bu ñu gisoon ni liggéey bi awul yoon danañu am fu ñu yem. waaye moom kenn mënatuma nax ci gouvernement kenn mënatu ko ndax ci gouvernement. li ma dox gis ko pendant ces sept dernières années. ne li mu dox gis ko pendant ces sept dernières années. ci ay réalisations ci ay réalisations. man ci àll bi rek laa mas di liggéey. nee na ci àll bi rek la mu di liggéey. sama premier poste Tiwaawan la woon. ne premier poste Tiwaawan la woon. Njaasaan gi liggéey si na fi ba sonn. Njaasaan gi liggéey si na fi ba sonn. ànd ko ak jigéen ñi. ànd ko ak jigéen ñi. kon yaakaar naa ni. kon yaakaar naa ni. jot naa ko am ci expérience. li nga xam ni jot naa ko am ci expérience. su ma ko boolee ak li nga xam ni moom laa gis. bu ko boolee li nga xam ni moom la gis. ñu liggéey ko sept dernières années yii. ñu liggéey ko sept dernières années yii. réew mi ngi jëm kanam. réew maa ngi jëm kanam. te ku dem ci àll bi nga xam ni. te ku dem ci àll bi nga xam ni. nit daan na dox trente cinq kilomètres. nit daan na dox trente cinq kilomètres pour am ndox. léegi daanaka. léegi daanaka. dëkk yooya. dëkk yooya. sur chaque cinq kilomètres. sur chaque cinq kilomètres. forage nga fa. forage nga fa. mbaa robinet nga fa. waaye àddina nag xëyul sotti ci benn bis tant nit ñaa ngi fiy nekk tant que nit ñaa ngi fiy nekk soxla yi am soxla yi am waaye yal na ñu yàlla jàppale waaye yal na yàlla jàppale ci ndimbalam ba soxla bu ñu am ba soxla bu ñu am mu fajal nu ko yaakaar naa ni loolu rek bu ñu ko amee bu ñu ko amee soxlaatunu dara nee li Macky def ci kër sëriñ si ci kër famille religieuse yi jox leen considération jox leen considération moo tax moo tax parce que ku nekk am wàll ne ku nekk am wàll ci réew mi te am na yoo nga xam ni am na ya nga xam ne ah, xëy na loxo jotewul ginnaaw ne xëy na loxo jotewul ginnaaw état nag ñëpp la fi nekkal état nag ñëpp la fi nekkal ñi ngi rafetlu bu baax ñi ngi rafetlu bu baax a baax ci réalisation yi nga xam ne ci réalisation yi nga xamante ni kii def nañu ko fi ci kër famille religieuse yi kon sëriñ bi kon sëriñ bi gërëm bu baax a baax a baax Jibi Kandji ñi ngi gërëm bu baax a baax Jibi Kandji ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ak ñi nga xamante ni kii ñoom la àndal ci département de Tivaouane parce que ba ñu fi commencé ñëw diggante gàmmu gi ak léegi ne ba ñu fee commencé ñëw ci diggante gàmmu gi ak léegi wax yàlla euh, mën naa ni seen activité yëpp la ñu arrêté. mais mën na ni seen activité yëpp la ñu arrêté. kon ñu ngi koy gërëm bu baax. kon ñu ngi koy gërëm bu baax. ci téye bi mu téye li ko Ousmane Tanor Dieng dénkoon. téye bi mu téye li ko Ousmane Tanor Dieng dénkoon. moom ak maam Bunaama Sall. moom ak maam Bunaama Sall. nekku fi waaye woon na ma ñetti yoon nekku fi waaye woon na ko ñetti yoon ci yoon bi. kon ñu ngi lay gërëm bu baax. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. ñaan gu ngeen fi ñaan. ñaan gu ngeen fi ñaan. ci seen barke maam. ci seen barke maam. yal na ko yàlla nangu ngeen nuyul ko nag soxna Marème ndax moom itam comme moo maamam Sabara la sant yaakaar na ni jege yoon nañu ak yéen kunta mii nee ñaata at nga def Louga. ñaar fukki at mi ngi Louga. ñaar fukki at mi ngi Louga. yàlla def nag fi ma dëkk la yàlla def nag fa mu dëkk la nekk. mais nit ku jub waaye nit ku jub la. nit ku jub. nit ku mën naa ko seede. nit ku jub loolu mën na koo seede. ragal yàlla nit ku ragal yàlla la. te xale ya nga xam ne du ñu doon fréquenté boutique ba mu nekkoon. te xale ya nga xam ne dañ doon fréquenté boutique ba mu nekkoon. ku nekk teg na la ci yoonu siraatal mustaqim. ku nekk teg na la ci yoonu siraatal mustaqim. loolu ku ko def loolu ku ko def. bu ñëwee fi fekk ko fi. bu ñëwee fi fekk ko fi. seeni ay rakk nekkoon fa. suñu ay doom nekkoon ca. war nañu leen ko seddeel yéen itam. jóge ci kër gi ne ku jóge ci kër gi ambassadeur nga war a doon ambassadeur nga war a doon nee na moom nekk na fa bon ambassadeur ñu ngi koy gërëm di ko sant allahuma salli ala sayyidina muhammad tubar kàddu yi rafet na la léegi nag ñu jox sëñ papa abdourahman mi yore kàddu boroom njaasaan euh, xam na nuyoo bi nee na xam na ni nuyoo bi ak dalal bi ak tatagal bi ñaari jëmm nee dañu koy jaarale ci ñaari jëmm ñu jox leen ko bi ci jëkk mooy Baay Sidi Maxtaar mi ñu tudd sànq ki ci tegu mooy sëñ Mohamed mu alxaaji Mambu te nekk ci kuréel gi ne ñoo ñooñu ñaar wax ji ñuy mën a wax ci kàddu sëriñ bi ak njaboot gi ci ñoom lañu koy jaarale ñu eggale ko ci yéen ne jàpp na ni ñoom ñooy seen bunt fii ci Njaasaan loolu moo tax ñu utu leen ci ñun pour waxal leen li nga xam ni man nañ ko waxal seen bopp waaye ñu wóolunu ci ba jox nu ko ne kon sëriñ bi nee na fii ngeen ñëw fekku leen fi kenn kudul seen bopp ne seen kër ngeen ñëw ci seen kanamu waajur ngeen ñëw ak seeni rakk ak seeni càmmañ ñoom rek ngeen fi fekk si guddal wax nee du guddal wax ji parce que arab yi dañuy wax ndax arab yi dañoo wax ni lu tuuti lu tuuti te doy te doy moo gën lu nu gàññ lu nu gàññ tey lëjle tey lëjle comme bis bi dafa nee comme bis bi dafa xat te melokaan wi wax na boppam te melokaan wi wax na boppam làmmiñ làmmiñ mën naa gàtt ndax melokaan kat ndax melokaan kat dafay wax dafay wax melokaan bii te melokaan bii wax na boppam. soxna Aminta ne soxna Aminta. xëy na toog moom tey. ne xëy na ñu ngi toog ak moom tey. waaye nopp dégg na ko. waaye nopp dégg na ko. lu jiitu bët di ko gis. lu jiitu bët di ko gis. jàngkat yi nag dañuy wax ni. yi nag dañuy wax ni. nopp nopp. dina bëgg. balaa bët a gis. waaye dina bañ waaye dana bañ itam. balaa bët a gis. balaa bët a gis. yàlla dogal na nag. yàlla dogal na. suñuy nopp. sunuy nopp bëgg na ko moom bëgg na ko moom te sunuy bët gisu ko loolu lépp nag dafay delluwaat ci dayoo bi mu am ndax doomu aadama bu ne ak lu nu la mën a dénk su fekkee am nga dayoo ci sa geño mbaa sa meen mbaa ñi la yar àddina du la mën a sàbbi mukk ba nga def loo xam ni ku ko gis da nga naan accam itam. loolu itam. ci dég-dég yi ñuy am. ci dég yi ñuy am. ñoo koy dégg ci soxna Aminta. ñoo ngi koy dégg ci soxna kon li ñuy ñaan. kon li ñuy ñaan. moo di. mooy. kóoliteef bi président am ci moom. kóoliteef bi nga xamante ni kii moom la président de la république am ci moom. parti bi am ko ci parti bi am ko ci moom. yàlla mi ko mën a téeñal. yàlla mi ko mën a téeñal. te su ko gungee. te su ko gungee. du wéet. su ko jàppalee tànkam su ko jàppalee tànkam. du fakastalu yal na ko yàlla defal jigéen nag bu matee li mu doon taxawaay bii du ko jomb du ko jomb ak bu ëpp bi nañu bàyyi xel ci ni nañu xel nag ci ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ku meloon ni moom ñu naan ko asmaaw bintu yezi nekkoon na koo xam ni ñawkat la woon bu musaa lu musaa na xottiku ci biir jullit yi daf ko daan ñaw su mbir musaa ni kët soxla loo xamante ni kii Seydina Muhammad war na cee dugal loxoom day taxaw ci ginnaaw bunt bi wax ak yonent bi posé ko problème bi daal di delluwaat ci ginnaaw kon jigéen yàgg naa yor lu mel nii ci am réew di ko toppatoo ba askan wi man cee gis seen bopp nattu la nag dafa am ku toxu yàlla dëj ko fi loolu rek doy na Ousmane Tanor moo fi nekkoon yal na ko yàlla yërëm démissionné wul wàccewuñu ko yàllaa ko soxla jël na ko te dootul dellu si loolu moo ko ci jotale kon dañu koy ñaanal kon dañ koy ñaanal natt bi ko yàlla teg jox ko ay bakkan jox koy bakkan ñii ay jëmm ñii ay jëmm topp ci gannaawam topp ci gannaawam yàlla bu ñu ko jéppi yàlla bu ñu ko yàlla bu mu leen jéppi loolu mooy ànd bi nga xam ne moom lañu ko bëggal fii nag damay wax day wax ni giléem giléem soo bëggee xam ni mu toll soo bëggee xam ni mu toll ngay jaar fa mu jaar. da ngay jaar fa mu jaar. boo fa jaaree. boo fa jaaree. ba xool tànk yi xool tànk yi. ak lam fa bàyyi. ak lam fa bàyyi. di nga xam di nga xam. dayooy gileem dayooy ak dooley gileem ak dooley gileem. li mu namm ci wax li mu namm ci wax jooju. mooy fii ñu toog mooy fii ñu toog. ku fi toog tey ku fi toog tey. gis nañ ko liggéeyee gis nañ ko liggéeyee. di nga xam ni di nga xam ni. gayndee fi jaar gayndee fi jaar. muy président Macky Sall. ñu ñi xam ni pour nit ñi xam ni ñun ay gor lañu ñun ay gor lañu ay jullit lañu kenn du ñu defal teraanga ñu xeeb loolu mbaa ñu weddi ko as gor boo ko bëggee yilif te doo ko yeew doo ko dóor doo ko génne da ngay jël njekk tàbbal ko ci xolam yeew nga ko buumu njaam balaa gore daf laa fay loolu moo nekk ci suñu diggante ak président de la république kon lépp lu mën a xew lu dul lii mu leen wax amul li mu leen wax moo am moom la sëñ bi dund moom la njaboot giy dund moom la communauté bi di dund moom la bokk yépp di dund loolu na ngeen ko dugal ci nopp président de la république ngeen xamal ko ni ko sëriñ bii toog ak njaboot gi toog dañuy nangu dogalu yàlla nit su bëggee noppalu am xel mu dal am xel mu dal su génnee mën a doxi su génnee mën a doxi ku ko gis naw ko bu yàlla dogalee nangul ko ko mooy dëgg te yàlla mooy fale pexe mën naa am waaye kenn mënta waat ni pexe mii dina jub kon bu tegoo nag fi mu tegu yàlla ci dugal loxoom ay jullit lañu nangul nan ko ko ñu ngi koy ñaanal li ko yàlla dénk yàlla na ko yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu mu nekk njariñal askan wi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu rek soxna si moo newoon kàddu yi ci kàddu sëñ bi ak njaboot gi euh, moom lañ doon mottali xanaa di feddaliwaat soxna Marème Kunta ndax dañuy wax ni sa mbokk mbokk mooy sa mbokk góor gi baaba Kunta ca Louga te njabootam nekk fa bi mu fa demee daaw jéeg bi mu fa demee daaw jéeg soxna Fatou Kunta soxna Kine soxna Kine jottali na ma jottali na ma sa ziar teg na ko ci sama loxo. loolu na la ko fàttali te mosunoo gisee lool rek jikkooy noobal la jikkooy ku doy la ku xam dayoom la ku ndaw boppam la kon jërëjëf yàlla ñi nga ànd ak ñëpp xanaa kay li ci des mooy ñu ràmb ci sëriñ bi ngeen tàllal ko loxo mu ñaanal leen ñaanal réew mi ñaanal li ci liñ la dénk ak dénk jiital réew mi benn xajam bañ ci am benn xajam bañ ci am asalaamaaleykum wa rahmatullah